simili ak ñett Aysatu euh, sànq seen ngeen ko noonu bi muy dugg si euh, Aysatu maa ngi lay nuyu di la dalal di la wax ne namoon nañu la ma ne man maa la namoon Fatick. maa la raw yow moom namoon naa la lool xaw ma kañ laa la gëj a gis. yàgg na waaw yàgg na yàgg na trop <laughs> waaye xam naa ne yaa ngi woon si jàmm. Ah, ndax yow borom jàmm nga bu baax a baax. am mm-hmm. mbégte bu baax. merci toogaat ak yow nga def sa sa sa sa sa kii nii euh, def nga maroon <laughs> fexe nga ba dugal ci ay pour kenn bañ a taqal lenn. <laughs> bëgg boobu fexe nga ba dugal ci ay corail ak ay affaire ak. ay noir ay yëf a takk yàlla kenn soupçonné la de rien du fii ñu fi soupçonné mm-hmm. ñu ngi fii toog euh, am na ko xam ne maa ngi jàkkaarloo ak moom. kenn ku ñu fair play ça ku nekk dangaa indi sa drapeau blanc. waaw <laughs> ah, tey jàmm rek. moom bés bi bu dul jàmm ko yàlla may jàmm. amiin yaa rabbi. di nuyu Sénégalais yi yëpp di nuyu sama mag ji ak Hadj Malick. Euh, di nuyu Marcel Maroon keneen ko moom du ma nuyu dañoo nekk si problème man ak moom. Mm. donc du ma nuyu. waaw ah. di nuyu Moussa sama rakk ju baax jooju. Mm. Cheikh Diop moom itamit gis naa ne xale yëpp sañ sa nañu Ibou Diouf mm. Euh, comme d'habitude rek Cheikh Tidiane Diaw moo sol quoi euh, di nuyu na sama grand bële mortal donc di nuyu Sénégalais ñuy seet teewlu ñëpp. très bien Aïssatou ñëpp a ngi lay fay ñu dugg ci jàngat bi mu euh, coïncider quand même ak actualité bi tey moom ay nee na bu kenn taar réew mi bu ñu taar réew mi sax ndax ku ne am nga ci sa part de responsabilité avant est-ce que am nga les les à côté comme ni ñu koy defee. am na ay ay divers tey ko. Mhm. ci rek bi ñu taar réew mi tey moom. Fatou euh, bëgguma euh, benn perdre benn temps ndax euh, à côté yi am yëpp rek li gën a rëy mooy lii ndaxte mhm. Fatou tey jii yow sa doom sama doom doomu chef ja xale yi nekk fii yëpp te xam nga école yu bëri tey dañoo tëj mhm. xam nga lool c'est grave école yu bëri dañoo tëj tey mhm. ñu bëri ñiy liggéey Euh, ñu ñu sañu ta bañ a dem. Mhm. dinañu teel a wàcc ay douze heures. ñenn ñi yóbbuwuñu seen oto ñenn ñi yóbbuñu seen oto. Mhm. ñenn ñi ñu euh, sama xeet yi nga xam ne dañoo ree laam xëy na mu am ñoo xam ne suñu mbokk dañ ñu ko xaw a ragale man sax presque si si si ñàkk pexe sax laa fi ñëwee. Mhm. ndax euh, sama mbokk yi sama borom kër rawale na kër ga ba rawale ñëpp la rawale. rawale lépp bant yeeg bale yeeg ñëpp la jël rawale. ñëpp dégg nga man mii daf maa mënul dara rek moo tax ma ma profité ne naa ñëw nag su ma ñëwulee léegi xam naa tam ñu ni waaw li war a xew Chérif Dia mooy euh, li nga xam ne euh, dafa naa temps yëpp ñu ngi ko fi waxtaanee ñëpp di ko waxtaanee mooy mhm. euh, Sénégal tey homme politique yi lépp lu ñu daal ñoom ñoo ñu ko teg te ñoo ñoo bëgg rek di fooyee réew mi ku nekk kii tey almet kee tey pétrole mhm. ñu ni nañu nañ ko sotti taal lu tax parce que ñoom ñëpp dañoo bëgg dugg assemblée nationale seen yëfu bopp xam nga loolu manque de respect réew mi weesu weesuwu ko euh, démb Euh, et ça m'a fait beaucoup rire euh, ba ma gisee fossile yooyu euh, ñoom ah, parce que ñoom léegi ils se sont fossilisés ñoom Idrissa Seck ak Pa Moustapha Niasse ak Aminata Mbengue Ndiaye ñëw toog dégg nga. Mm. ñett ñooñu nga xam ne nit ñi fàtte woon nañu leen xam naa dañu man xaw ma ban grotte lañu leen xaw est-ce que dugg ñu dem ñu ba Bandiagara loqati leen génn leen ñu teg noonu dégg nga ña nga weex fur xamuñu sax lu ñuy wax. dégg ñoo mm. toog dégg nga vraiment jaxasoo jaaxle ñii réew mi yàgg naa tàq mosuñoo génn. Mm-hmm. xam nañ nag ne fi ñu toll nii. Euh, euh, l'heure euh, est grave l'heure seen bopp leur heure est grave ñoom ñoom ñoo ñett ñooñu xam nga ay fossile la mhm. léegi ñoo toog bu ça m'a fait rire vraiment le la seule lueur wala le seul truc rigolo dans cette affaire là mais mhm. Fatick. Mhm. pour être plus sérieuse lan moo xew. lu xew mooy conseil constitutionnel et ça c' est ma conviction. c' est conviction. a encore fait n' quoi. parce que pourquoi elle a encore fait euh, il a encore fait n'importe quoi. mooy euh, ñun dañu am fii li ñu doon keroog maa leen jàng loo xam ne soxlawul vraiment jàng bu rëy. soxlawul ay diplôme en droit soxlawul dara dafa leer. waxaat naa ko loolu lu ko gën a simple sama nenne ba am 3 ans sax. Mm-hmm. boo ko laaj ko mën euh, li xew lan la mooy euh, léegi parité la ñu am parité alternative góor jigéen góor jigéen. Mm-hmm. loolu mu leer parrainage. ñu minimum. Mhm. Euh, minimum bi lii la. Mhm. bu mu yokk bu naa nga ba pare bu mu am doublon loolu xam nga dafa leer simple mhm. léegi euh, nu ñu waxee ko noonu ñu ni léegi euh, pour yow nga bokk ci xew mi. foog nga matal lii. balaa boobu xam nga am na ay caution ay nangam ak naan te yooyu yëpp man nee naa fii damaa d'accord loolu am. parrainage dama ci d'accord man. caution bu yokk dama ci d'accord ndax bu loolu amul woon. kon pëcc xaw ma n'importe qui ginnaaw bu jóg jóg ne dama leen jiite. Mhm. loolu ba mu amee gis nañu tey euh, huit listes ñoo nekk en compétition. Mhm. donc euh, foofu liggéey moo fa am ak ndax ku liggéey tari ko ci assemblée nationale bi. Mhm. léegi nag loolu yëpp ba mu amulee ci dinaa defaat un petit rappel des faits ci li tax amul. Euh, conseil constitutionnel mu am lu leer ñu ko wax. bu lii matul bu kii bokk ñu wax tamit loo xam ne tamit loolu gis naa boobu ba léegi. Euh, soi-disant Sénégal léegi nu ñu ne nu mu bëri ay experts en football. Mhm. noo la bëri des experts en tout te li gën a doy mooy ñoo xam ne nii dañ ko jàng sax ay juristes nga xam ne comme ñoo ñoo war a nekk suñu rempart. dégg nga xamal ñu leen ñoom ñëpp dañoo far nga gis ñii far fee yeeyu askan la ñu far ndax du ñu wax lenn loo xamante ni nii. Euh, arrangé ñoom li lépp lu ñu wax. Hmm. te ñooñu ki leen di jiite je le répète ici Ngouda moo jiite front boobu moo jiite front boo xam ne lépp lu lu arrangé euh, yeeyu askan wi. Hmm. ak Ousmane Sonko moom Ngouda Mboup loolu lay wax moom jàngam yëpp ci euh, contre gouvernement la ànd ak kële gouvernement aussi am na am na. ay c'est c'est c'est constitutionnaliste. foofu sax moo gën a leer ndax ñoo dañu ñu dégg ay ñoom nag Ousmane Seye dañu fa dégg ay ñoom mënul si ak et cetera mais ñooñu xam fa la ñu bokk. Ismaïla Madior Ismaïla Madior ñooñu xam ñooñu fa la ñu bokk dafa leer mais ñee encagoulé ñee nga xam ne ay ñoom Ngóono Boobu ak ñoom si Sylla ñoom ñëpp. ay yeewu askan wi lañu bokk mais bu ñu ko wax askan wi xam nga loolu c'est c'est très grave. Mmh. après qu'est-ce qui se mooy ñun ñii ñun dañoo tane. dañu ñu dañuy tuuti suuf ñu wax ñu mhm. mais sénégalais lambda bi doog di seetaan xamul li xew bu dégloo ngóono buub déglu njaga si laa xamul ne ñii dañoo bokk ci yeewi askan non non attends rek Chérif ah, xaaral ma ñëw non xaar xaaral ma ñëw Chérif xaaral xaaral ma ñëw donc fa la ñu bokk léegi dañ naan ñii ay consul nangam léegi nag li xew mooy ñoom ñoom ñëpp euh, euh, conseil constitutionnel bala maa ñëw ci ku nekk sa sa erreur bi nga def conseil constitutionnaliste le conseil constitutionnel waroon na def loo xam ne nii moom la yoon wax euh, euh, liste bi li ma gëm man te dama ko laajte aussi ñoo xam ne bokkuñu fenn dama dem ba wax université fac droit ñoo xam ne bokkuñu fii bokkuñu faa ñu leeral ma mais ñoom ñëpp dañuy interpréter waaw xaaral ma ñëw bokk loolu li nga wax lan wax ci conseil waaw ñëw léegi euh, chérif nga xaaral ma ñëw mm-hmm. ndax yow xam nga sax dañoo xuloo man ak yow mm-hmm. donc na ku ne jàpp sa ñaambo mm-hmm. léegi euh, euh, ñu ñooñu li ñu ma wax te dafa dafa rejoindre li ma gëm te loolu tam mooy mooy pour man c'est c'est logique mooy liste bi c'est indivisible mënoo ndax ndax bu ñu bu ñuy bu ñu bu ñuy bu ñuy joxee bu ñuy wax liste ñaar la ñuy wax titulaire ak suppléant kon munoo ne da ngay da ngay valider bii tëbal bee man loolu gëmuma ko gëmuma loolu man kenn mënu ma kenn kenn mënu ma expliquer ne euh, mën nga titulaire mën na dugg ñu bàyyi suppléant kon bu dee kon noonu la kon kon nañ nañ supprimer suppléant ndax suppléant kon dèjà ñëpp xam nañ ne te lii ñii lañu la def ni wane na ne suppléant Euh, décor la fi nekkee la galerie remplissage mais faalo ñu comme amul importance la nañu ko dindi teg ko fee maintenant mu amul remplaçant loolu xam nga kenn parce que déjà dégg naa ñoom c'est un manque de respect pour hmm. même ceux qui sont sur la liste des suppléants hmm. parce que xëy na ñoom xamuñu woon xew mais boo dégg déglu naa Mimi Touré wax déglu naa ñee wax ñaan Mimi Touré naa non ba ba fa écouter Mimi mi dafa Mimi moo ko xaw nañu en tout cas ñoom daal li ñu seen communication li ñuy wax mooy non déjà bu euh, liste euh, titulaire yi bu kenn poussé keneen ci biir liste titulaire yi dañuy remplacer tey mais comme loolu ñu ñu koy doog wax léegi léegi comme léegi dañ ko constaté kon désormais dañu génneel liste suppléant suppléant bu mu amati ba pare aussi beneen bi li conseil constitutionnel def mooy wax na ne war na ne désormais kon Euh, euh, liste nationale euh, titulaire mun na dem sans suppléant xam nga tam loolu yëpp lan lay firndee firndeel mooy ñun Sénégal li ñu yàgg wax rek. Mhm. on a une justice aux ordres on a droit naaw na démocratie tëb donc conseil constitutionnel loolu la def. ba mu defee loolu nag mais loo xam nga lan moo ko yombalal mhm. foofu laa dellu see ci la part de responsabilité de chacun ak ñàkk respect respect bi homme politique Sénégal am suñu. fi réew mu toll Fatou ba fàttali la. Mhm. ne yow man ak yow dañuy dugg ci marché. Mhm. ñun ñëpp fii ñu fi toog ñëpp yor nañu oto ku yoru en chef jàmm nga xam ne Range Rover mm. mais Marcel gis naa ko mu yor bicyclette mm. man sax euh, tout trottinette laa yor dégg nga <laughs> euh, kii la yor yow nga yor clando euh, nga yor dégg kenn yor fi Range Rover mais ñun ñii xam nañ ne ñu ñu waaye bu yeboo ñun ñii xam nañ ne super carburant bi yokk na mm-hmm. diwlin Fatima nga ñu dugg marché. diwlin tegatoo ko bët. boo ko tegee bët ay vingt huit mille trente mille kenn waxu si. je SOS consommateur SOS mi ngi ciy wax mais tey li tax may la ñii faale ñun man sénégalais laay waxal. dañu la déglu la viande coûte cher. Euh, tout coûte cher. et puis li gën a garaaw a garaaw mooy. pigeon yu ndaw sax pigeon sama jëkkër dafa bëgg pigeon. père pigeon sax yow loolu gën a cher yow li nga wax moo gën a cher. <laughs> mais avance. réew mi borom barke nga yaa ngi wax waxu pigeon yaa taw. kii euh, Fatou est-ce que chef mën na génn sama wax. génn ah, <laughs> léegi. bi dafa doy waar lépp cher mais. kan ci ñii di fas yéene rayante tey koo ci dégg mu wax li Sénégal ñoom ñëpp lu ñu wax seen seen i fi bopp

ñoom euh, dañu li ñu waroon a def li ñu wax Malick dégg nga dégg naa évidemment dégg naa ne wax nañ si waaye loolu dañ ko waroon a teg ci kaw te ba te bàyyi sañu fi bopp je reviens ci li ma loon wax donc fi mu toll nii man ni la ñun suñ li ñu gën a yëttee ñun mooy lu ñu nekk lu ñu lekk ak lu ñu naan moo nu gënal ay nit yoo xam ne ñu toog ñoom ñëpp di xuloo parce que dugguñu assemblée nationale léegi seen et puis manque de respect sénégalais yi faati mooy lan ñoom ñoo yombalal conseil constitutionnel forfaiture bi conseil constitutionnel def dëkkee ko ñoom ñoo ko yombalal euh, benn boo ko yaakaar laa njëkkee wax naa fii la dernière fois ne euh, Macky Sall li mu war a lijjanti dafa bari parce que moom évidemment moo fi teg euh, parrainage moo fi def parenage moo fi def lii moo fi def laa loolu yëpp ku ne xam ne ne mbaax taxul mu def ko li tax mu def ko mooy am ñu mu kale man lu tax ma kontaan ci loolu ndaxte Euh, euh, dañuy gis ne ku jóg bëgg a nekk dara donc filtre boobu man d'accord naa si évidemment nee naa je je répète Macky Sall ko pour des par philanthropie mais euh, xoolal ak li ma tout le nit ñi dañuy fàtte yàlla ci yëf yi mm-hmm. moom Macky Sall ba mu ba mu tëggee li muy tëgg ba pare il est tombé dans son propre piège parrainage bi daaneel na ko parité daaneel na ko. te loo xam nga suuraaloo ko woon. Mhm. cela veut dire que tout simplement ñamu ña euh, euh, yàlla am na. léegi ñoom ñoo yombal kon li may wax ne conseil constitutionnel beneen bi yeewu askan wi euh, Ousmane Sonko mais ñun moo ñu xamal ñun Sénégalais yi ñëpp Ousmane Sonko moo ñu xamal ne ñoom service national du bokk. moom moom moo ñu ko xamal xam nga nit aussi c'est que man li ma gën a métti mooy Sénégal du ñu wax dëgg te ñemewuñu dëgg te dañuy gis dëgg nii ñu bàyyi dëgg dem fële. personne kenn kenn kenn ñemewul jàkkaarloo Ousmane Sonko ne ko yow mii yaa njëkk yow yaa yëgal àddina ne seen liste baaxul du ngeen bokk ba pare nga ni fut waxul erreur dafa ne fut bu ñu def la ñoom waa léegi. gën attention. waaw mais fut la man fut fut ba d'abord. voilà waaw mais mais dafa ne fut gën attention mais man baat fut baa ma ji gën intéressé. Mhm. ndax ndax moo na ne erreur mais dañu fut. Mhm. te ko da nga xam ne ne fut. mais <laughs> donc ñoom yow yaa nangu ne liste nationale seen liste nationale du bokk baaxul ndaxte baaxul lu tax baaxul Macky Sall loxo Macky Sall nekku si loxo ma loxo ma Demba nekku si seen Déthié Fall moom a ngeen jël jël lépp dénk ko ko denc comme li jëndiwuloon dara lu dul bàyyi yëfam di li di li jënt benn bokk yaakaar loolu jàll donc seen propre bêtise ñoom ñoo ko def ba seen liste baaxul léegi kon xam nga ñoom yombal nañu conseil constitutionnel ba tey bi fii laa tamit ne liste euh, euh, Barthélémy Dias bi bu département waaw bu Dakar bi mhm. bañ ko rejeté foofu moo na ñëw marché manifester dafa ñoo dañ na pak toog parce que ñoom faalewuñu ko mhm. parce que foofu loo fa doon dégg ñu ni ñoom ñoo plan Barthélémy pour ba ma ko déggoo bëri jóg ñu validé yëf ja bañ nga validé dégg nga dee ca faa ñëwaat tax taxaw toog ci micro yi waaw waaw le conseil constitutionnel a dit le droit kontaan nañu mais bañ demee nag ba seen liste nationale ba feeñ ci lañ ñëw ba ba ba ba Sonko waxkat bi daal di génn avoué na ñoom ñoo def seen bêtise su bopp après ci lañ ci la ñu rétropédalé commencé na ni dañuy tànn réew mi waa léegi réew mi dafa war a nekk benn foyekaay boo xam ne ay opportuniste ay nit ñu jóg def seen propre bêtise ne dañuy jël sénégalais yi en otage. Mhm. tey démb neex na man dégg naa seen wax seen discours yi. ñu ñu ñu euh, ku nekk déglu nga ko mais te kenn bàyyi si xel dégg nga ñu taxaw di justifié wu naan waaw bu subaa ñun suñuy mbokk yi suñuy doom yi ñoo nekk en première ligne loolu parce que ñëpp tout le monde la a reproché mm-hmm. mais da da ngeen bàyyi leen di làq seen i doom ak seen njaboot di leen tukkal ci biti ñu voyagé mm-hmm. ngeen taal réew mi taal ay doomu jaamu woo doomu jaamu ñu génn ci biti dama ne il faut qu'on arrête il faut qu'on arrête il faut qu'on arrête lan la xam nga tey ban ban lan lan lan lan lan laa doon xaaru ci aux partis politiques euh, partis au pouvoir comme opposition. conseil constitutionnel Fatick. amul mooy mooy ñoom ak tax ba mi ngi ci kaw. wax na li muy wax ba pare xam nga kon match bi ni euh, nga ko waxatee. Euh, jeex na ni nga waxatee ci ci football. match bi tas waaw yéen kii nañ ba pare wax nañu ne liste yi kii mooy dugg ci nàngam la loolu kon xam nga jeex na. Mm-hmm. léegi comme jeex na. Euh, ndox tuuru na an mbaax sa ci des man bettu ma woon benn yoon ne ñi lay dem et puis ku ku yàlla xam nga ne conseil constitutionnel nii la mën demee ndaxte fii Sénégal malheureusement conseil constitutionnel fukki xelam ak juróom-ñaar xalaatul mun naa dinañu bàyyi élection jàll te Macky Sall bokkul wala majorité bokkul ku fi musul musul nekk na ci régime ci président musul am li li xew na ci Macky Sall c'est une honte pour Macky Sall parce que c'est la première fois que benn euh, parti nga def nga def nga def sa ay liste liste ya baaxul loolu c'est une honte Macky Sall ci boppam dafa waroon am gàcce tey jii bu luy jàllee nee naa li may xaar si moom mooy ña ko defal liste ba ña ko kéebal ñu ñëpp ñoom ñëpp moom moo defal liste bi non moo ko def laay moo tax ne am na am na nu mu demee ba yëfi demee nee le donc moom gàcce gàcce dëggantaan li daal Macky Sall ndawul gàcce bu rëy la mm-hmm. léegi loolu xew na euh, conseil constitutionnel Euh, may na ñee dak yeew Dakar euh, euh, yeew askan may na leen sarax na leen Barthélémy Dias Dakar puus na affaire yi tugal tugal na leen léegi jeex na xam nga li ñu waroon def tey mm-hmm. ñu wane ne ñoom nekkuñu fi pour par force naa dugg assemblée affaire bi jeex na lu ñu waroon a def tey suppléant seen liste suppléant yooyu ñu ne moom lañu ñu bal ñu xëy suba nangu ne d'abord li xew yëpp seen seen c'est d'abord à la base seen bêtise ñu xëy suba daal di woo sénégalais yi def seen conférence de presse ne comme ni la demee léegi <laughs> on at acte parce que à la base si nous qui avons ñu jël nag battre campagne pour ndax ñoom ñoo tànn na fa seen seen suppléant yooyu si ñoom la ñu bokk ñoo leen tànn. Mhm. léegi nag bu ñu demee li concours de circonstance yi bu amee yàlla tamit dugal ci loxoom daana yéen du ngeen bokk. parce que problème bi lu tax coow li bëri mooy yàgg naa ko wax fii liste nationale Yewwi Askan bu à part Sonko Sonko xëy na problème boppam la bëgg lijjanti mais Déthié Fall euh, euh, euh, dina reprendre à zéro parce que dafa raté le ba mu war a dem tagg bopp natt boppam peese boppam dem dem Saint-Louis outil base defu ko dem làqatu ci liste nationale ba ñu bëmax ko donc il va avoir encore cinq ans pour bokkaat ci course bi sama bàññaan ay da mbooj kasaali ko noonu tout ñoom ñëpp euh, pas abus ñoom ñëpp fi mu nii seen carrière nekkatul point d'interrogation point de suspension la te loolu c'est bien fait pour ndax ñoo ko nangu léegi nag ba loolu amee ñu waroon a jël wala kon ñu ni nañ nañ taal Sénégal pour forcer. parents non waxum taal dem ñoom rassemblement ay nan bu taxawee ci terme yi quand même rassemblement mënuñoo tere quand même dans une démocratie opposition mu exprimer wu li nga xam. et je suis d'accord avec toi xam nga xam problème kay mooy. non autorisé à ce rassemblement. am autorisation boobu xam nga autorisation boobu. merci dama la rappeler xam nga autorisation boobu. Mm-hmm. Euh, euh, man kontaan naa si ñu ko autorisé mais naqari na ma ci ni ko defee tardivement. parce que fii euh, ay marche ak manifestation yooyu. Mm-hmm. dañ ko war a baax. droit la droit la. constitution moo ko c'est que ñun il faut ñu respecter. les institutions. c'est ça yow mënoon da jiite réew te yow faale woo. faala woo li nga xam ne ñun mooy moo ñun dëgg suñu dëgërul waaye faala woo ko. mu tere ko mooy mooy indi fitna. mais mooy indi fitna donc euh, euh, bàyyi ñu seen marche. nga bàyyi ñu marche encadré ko accompagné leen bàyyi leen ñu wax leen neex. mais mais nag du marche yëpp la ñu mën a nangu tamit. non non je suis d'accord mais mais on parle. on parle euh, c'est-à-dire am ndaje la ci benn place. na muy muy ndaje ak même bu doon marche nañ ko teg ci yoon. Mm-hmm.

voté maintenant je reviens à ce que je disais euh, suppléant euh, ñoom benn bokk yaakaar euh, nu mu tuddati yeewu askan bi li ma posture normale logique cohérente ñu waroon a def après avoir constaté reconnu que ñoom ñoo yomb ñoom ñoo prêté le flanc seen amateurisme ak seen bëgg falu bëgg a pousse kii ku ne ñoom seen bopp ñoo ñoo doon guérante ba leneen dal dal leen loolu dal na leen conseil constitutionnel pour profiter ci ba max leen ñoom ñëpp validé la dañu toog nañ comme nii la demee. l' essentiel que que à l' à l' assemblée nationale qu'il y ait quand même la présence de Yewwi Askan mais Yewwi Askan n'est pas face n'est pas réduite à à à Déthié Fall mi wala euh, Ousmane Sonko wala keneen suppléant yooyu tamit mais c'est le tout nañ ñëw baat campagne. pour seen liste suppléant waxante wàcc ci ci askan wi waxante ñoo ne ñun bokkuñu waaye ñun lii mooy suñu liste. nangam dafa dafa dafay offre waaye noo ma kon suppléant yi faaloo ma la duñ dugg loolu duñ ko nangu ba ca des faate mooy euh, euh, fii laa toog ma wax ne euh, coalition bi aar Sénégal bi Sénégal vraiment ñoom ñëpp ñoo daal man j'ai vraiment pitié Sénégal doon wax j'ai pitié du ñoom ñëpp ils sont pareils ndekete foofu ko fëri mu mburu foofu ko fëri vraiment merci beaucoup xoolal aar Sénégal fii laa toog ñu mel ne aar Sénégal dama ci kontaan ñu dugg ndax kenn ku ne boo xoolee sa profil. Mm-hmm. mun nga ko keroog nee naa dañoo war a ñoom itam ñu wàcc si ndax euh, sol takk ay sol costume takk cravate. Mm-hmm. du guuxi la yi ñuy ah, nangam loolu ñoom seen parce que ñoom ils ont un problème principal et majeur mooy ñoom ñëpp seen base bariwul. Mm-hmm. Sénégalais yi ñeenuñu leen. ñoo ñu am occasion opportunité wàcc si Sénégalais yi mais j' étais déçu temps yi ci seen discours. lu tax yi ba ma déggee ñu naan. waaw ndax ñoom xam nga euh, euh, daf dafa euh, ñu ni wii ñaar ñi waruñu bokk dégg nga conseil constitutionnel li mu def n'importe quoi la nangam nangam mais parce que au début xool discours bi ñu doon wax li ñu li ñu doon wax ñoom li ma li ma naqari mm-hmm. ne majorité du bokk majorité warul bokk yeey warul bokk Euh, nangam nangam parce que en fait de quoi il s'agit. mais bu respecté yoon noonu la war a demee. waaw mais mais kay wax la wax naa wax naa loolu euh, Chérif. loolu ndax ñoom ñaar kenn respecté ba pare. mais ñoom fa laa parce que ñoom seen seen seen communication temps yi xam nga lan lan lan lay wane. dafay wane ne ñoom dañoo kontaan. ci bu euh, benn bokk yaakaar bokkulee. yeeyu askan wi bokkul. ñoo ma may ma ñëw Chérif ba ma yàq sama sama. c'est normal loolu ma dafa c'est bokkul. ñoom ñoo def war ñoo bokk léeg-léeg Fatick kii est-ce que du noppi ma ñëw ndax sama mbàjj na. nga war a football sa adversaire waaw léegi euh, euh, Chérif Dia Chérif Dia gën a sama wax. léegi ñu ni ñaar ñii waa waa Ar Sénégal. Mhm. ñu ni ñii bokkuñu léegi ñun xaalal nañ ñoom xaalal nañ leen yoon bi Euh, li ñu waroon a def profité si mais comment naka lañ si profité hmm. wàcc si wàcc si terrain mais toog naan ne euh, euh, ñun ba pare ba pare di rêvé naan waaw cohabitation dina am ñun ñuy toog yàlla fi di premier ministre non non non non non non non le futur premier ministre non non Chérif je ne parle de rêver mais fii ici on en politique xam ñoom hmm. ñoom ñii wax naa et je le maintiens kenn koo si jël rek teg la te visage bu bees la man ñoom ñii ñoom laa si ñoom laa ëpp yaakaar que politicien traditionnel mais xam nga ñoom fu ñu nar a yàqulee ñoom. traditionnel la. waaw waaw waaw. politicien du mag. <coughs> Fatou kii est-ce que mënuñu kii kii ñi kenn ku bëgg ko ay plateau télé du ay plateau télé du ay cravate xoolal ak seen ak seen cravate yi yëf yi du ay yëf yi du ay mm. tubaab ay choco choco ba ba écoute ba écoute non il faut wàcc si terrain bi mm-hmm. sol yëre Malick yii mm-hmm. dégg sol ay carax wàcc si terrain bi dugg si ñaay bi waxante ak Sénégal yi xam ñu Sénégal yi xam la mais loolu boo bëggee dugg assemblée dugg si dugg dugg nag dafa am solo mais ak duggin wa bu dee nag fa nar dugg ci plus fort reste bu dee nag fa nar dugg parce que euh, euh, miraculeusement ñaar ñee bokkuñu ñaari lu euh, gros gaillard yi bokkuñu nga ne damaa bëgg dugg par force erreur la fi may jeexalee. waaw mooy. Mhm. sénégalais laay woo encore une fois. Mhm. ndax man ñoom laay waxee. Mhm. politiciens yii ñoom ñëpp a yem bu ci kenn jaral kenn ñu xoos la ndax lan. bàyyi leen ñoom tey jii manifestation bi tey. comme nee na dañuy ñëw rassemblement la dañuy ñëw toog waxtaan waxtaan waxtaan seen bopp bàyyi leen ñoom ñu dem toog ñoom it neen nañ toog. militaire lañ bëgg a waxal foofu. Euh, euh, euh, xam nga ñu politicien mais seen militant dañu lañu politique. mais li ma ñu seen yoon nekkul. toog leen balcon loge di seetaan. Mmh. télé ñële waa benn bokk yaakaar ñi nga xam ne. Mmh. ñoom li mënuñu dara lu dul tontu. Mmh. ñoom jamais. Euh, ci lu ñu koy wax ci football euh, attaqué wala lan. ils sont jamais offensifs. ils sont ils sont jamais offensifs ñoom dañuy toog ne pàcc. réaction waaw daal bu bu yeewee ba pare 21h ñu dajaloo euh, sama yaay ñoo def mosoo bu rëy. dégg nga fusilier paa yi ñëw toog waaw ah yeewi nii yeew nañu ñu ñu manqué ba dee wayal donc sénégalais yi bàyyi leen politiciens yi ñu dem toog li jënd seen problème bu bopp. Mhm. bu leen kenn fatt. ñoom ñoo def seen bêtise su bopp ñoo ko sumb nañ ko naanal seen bopp suukar ko meew ko naan ko. Mhm. bu kenn génn. balee leen ñoom ñu toog ak ñoom ñu décc mi nga xam ne maa xam ne dañoo war a wàññi suñu lex yii dañ dem toog fële jàkkaarloog àddina wax ak ñoom seen problème te dañ naani lu ndox xëy suba jël seen liste de suppléants yi mm. dem battu campagne ñoom Abdourahmane Diouf nañu bàyyi seen wàcc seen costume yi mm. seen tubaab yi forox yi ñuy làkk nañu wàcc ci suuf waxante ak askan wi wàcc si terroir bi mm. Macky Sall nag foofu laay jeexalee mm-hmm. ku ko bëgg a daan da ngay nelaw ngay bàyyi da bàyyi nelaw di di di bàyyi ndox sa di naan café hmm. café sans sucre ngay naan pour mën a yeewu ma bakkante ak moom hmm. du seen morom du seen ci ci ci cerveau bu doy waar garaaw euh, bàjjen jërëjëf bu doxal merci beaucoup Aïssatou Diop Fall ci jàngat bi niñ koy defee ak moom àllarba bu jot léegi léegi ñu dalal suñu invité coalition yi